salaamaaleykum yéen ñuy seetaane ci Mbour TV salaamaaleykum yéen ñuy seetaane ci Mbour TV point net ak suñu plateforme yëpp audience nag ñëwaat na tey nag ñu ngi fii ci ñanda Ndianda nekk ci commune ba tey rek ci Ngéejeen tey nag ki ñu war a dalal mooy nekk directeur de cabinet kii Bokar Diouf ñu gën koo xam ci turu Abdou Karim Amsa turam nag ñu gën ko xam aussi tamit ñu koy woowee saa ngoone fii nga xam te ni mooy ci village bi tey nag la ñu a waxtaane bëri na dina jëm ci biir APR lu jëm ci wàllu commune mais aussi ci wàllu département loo jëm ci wàllu gestion de la yi ak li nga xam te ni mooy réalisation yi nga xam te ni kii di Boucar Diouf jot na koo def mais aussi relation bi am visa bi ak li nga xam te ni nii mooy ak euh, naataangoom yi mais aussi ak xale yi nga xam ne ñoo nekk fii ci diwaanu ñànd loolu yëpp nekk ay ponk yoo xamante ni rek dinañ ko waxtaane mais laataa rek ñuy tàmbale dañuy wax ki nga dañuy jox ki nga xam te mooy Abdou Karim am sa mu nuyu ñi nga xam te ni ñoo ñuy seetaan à chaque fois ci Mbour TV audience Abdou Karim nuyu nañ la euh, waaw kilifa gi ñu ngi lay fay di la ziar euh, di la jaajëfal encore une fois ci sa déplacement parce que tamit euh, mbuur du fi euh, ngeen bàyyi seen temps pour ñëw defal ñu benn euh, émission bu ñuy tuddee audience bi ngir ñu di ngeen ñu may chance ñu mun ci xamle lu bari daal révélé ci lépp li nga xamante ne nii mooy suñu liggéey ak suñu toogaay ci biir commune bi vraiment ñu ngi lay remercier. gannaaw yow tamit bu ñu la fay rek Abdou Karim yow yaa nekk directeur de cabinet di kii di Boucar Diouf te ji kan mooy Boucar Diouf. Euh, waaw da nga may may foofu tuuti nag euh, balaa ma lay wax kan mooy Boucar ma nuyu képp kuy responsable politique ci biir département Mbour ci biir commune Nguéniène ak ci village bi ñuy wax Ndianda euh, di jiital ci nuyo bi aussi ki nga xamante ne mooy le coordinateur de la l'APR de la commune mooy madame sen teg ci ki nga xamante ne nii mooy le coordinateur chargé de la massification du parti de la l'animation muy monsieur Boucar Diouf. Euh, waaw wax ci Boucar nag euh, dina ma yomb euh, ndax Boucar politique booy xool à 100 pour cent sax du moo ñu boole Boucar on a cheminé ensemble depuis xale ba tey ñooy ànd ñu partagé lu bari boobu ma nekk élève moom mu nekk un jeune boo xamante ne da doon yongu ci métier vulganisateur. Euh, yàlla ubbil ko buntu nag mu nekk nit ka nga xamante ni il a été toujours ambitieux euh, ñu nekk di liggéey di liggéey di liggéey ba yàlla def tey euh, li mu def yàlla am na wax dëgg fa ne yàlla lu mu ko dënk mais taxul mu changé. nit ka mu doonoon démb ak tey moom la nekk nit ku am ambition la nit ku bëgg mbokkam la nit ku bëgg dëkkam la waaye nit ku bëgg tamit ay àndandooyam lañ waaw parce que tey booy xool ki nga xamante ne ni moom mooy Boucar Euh, limu mu liggéey ci commune Nguéniène bari na waye aussi tamit bo xolé ci li nga xamantene ni mom moy ay entourage am euh, euh, mënuñ ci wax ba jeexal daal mais euh tay li leen fi andi ba tax mom mënul jël cadeau moy dañu am structure bu bees bu ñu tëgg tuddee ko ki nuñ koy waxatee ci ben cabinet fal ci ñu bari encore ma profiter aussi di nuyu ñepp ñi nga xamantene membre kii bi lañ euh, muy Étienne Ndiaye euh, Demba Ndiaye euh, Seck Amath Seck Serigne Bamba Gueye ak ku ñuy wax André Ñing ak André nduur chargé de la communication ñooñu daal ñoo nekk membre cabinet bi ñoom Astou Gueye ñoom Mbulo di ziar ñëpp daal ñëpp ñëpp waaw ak képp kuy responsable APR nekk ci Ndianda ku mel ni ki ñoom euh, moom du Dione ñëpp daal ñu ngi leen di ziar. ñu wax APR di eh, diwaanu commune de Guédiène te duñu wax d'abord li nga xam te mooy problème ndax nag ci biir commune bi loolu moom gis nañ ko nemmeekoon nañ ko jamono ji dox li nga xam ne problème bi doon dox diggante Prodimel ak li nga xam ne ni mooy askan wi tey ji eh, nan nga jàngate loolu coow eh, li wàllu suuf nga xam te ne ni dafa wër ci àdduna bi jamono ji ci diwaanu Sénégal mais rawatina ci diwaanu département de Mbour Euh, waaw euh, question boobu moom comme ni nga ko waxee noonu la fa demee booy xool Sénégal tey moom ah dëgg fa neex yàlla suuf coow la fi boo xamante ne chaque jour mu ngi am de jour en jour euh, nekk la nga xamante ne nii tamit ñun dañ koy rafetlu ndax bu nit bu amee loolu métti da ko war a wax ci wàllum suuf la moo xam ci napp gi la moo xam ci càmm gi la moo xam ci lépp waaye liñ ci mën a tënk rek mooy ñun bi ñuy wax ci produit mel di wax ci foncier wu commune u Nguéniène non du 2019

Il ay jafé jafé yu projet nak ñun ñuko projet produit mel duñ ko ci tamit ci ndax li tax ñu wax gestion bi xamuñ nan la xamuñ la à 100 ba tax dañ ci de réserve mais mën nañu képp ku projet ci biir commune population bi à 100 les acteurs d'initiative leurs idées cohérents ko ak idée ñu mën a tëgg projet bu fiable askan wi gis ci seen bopp ñun loolu foofu la ñuy xaar ci foncier parce que suuf nag kenn du ko fi teg di ko xool noonu rek ku xool nam demee woon ca euh, ndakaaru jamonoy lébu ga ba tey jii nga war a xal ay étage wër fi parce que dëkk bi ay sàqeta fi nekkoon ak ay néegu ñax kon loolu jàppal ne fu mu mën di nekk fu lu baax nekk ñi ña fekk ko fa te commune Nguéniène dafa bokk ci suuf si toog ci fu baax ci Sénégal soriwuñ littoral bi soriwuñ euh, euh, la brise de mer Sauf bi amna fertilisation climat bi aussi c'est favorable pour l'agriculture favorable pour l'habitation. mais projet bu mu fi wara ñew ñun dañoo ne kuy ñew ñu projet de bu and ak viabilité euh, permettre aussi population environnante di dund ko yek projet bi sentir sen bop ci projet bi ñun lool la xex xeex produit mel amul ñu ak mom lu ñuy wax parce que man sax du may bëgg prononcer euh, son euh, touram parce que entrepreneur la rek fay ñew di te liggéeyam Euh, ah euh, lañ ko présenté xëy na moom ak la mu présenté ña fa nekkoon ci jamono boobu ñoom la concerné xëy na kenn parce que première loowu produit mel ñi ko délibéré ay socialiste lañ woon deuxième loo bi ay socialiste lañ xëy na ñoom ci seen biir boo leen tàllaloon micro te ñu ñu bëgg a leeral ñu leeral mais ñun daal fi ñu am fu ñuy xaw a wax tuuti rek mooy nañ gën a góorlu di boole population bi ci suuf si parce que ku wax suuf wax population ndax ñoom ñoo fi nekkoon seen i maam gor wala seen maam di sàmm di ci nekk kon suuf sa lépp loo fay def rek ñoom war nañ ci yëg daal mais newul loo xamante ne nag xëy na ñun euh, ah dinañ ci am yeneen xëy na nag am nañ ci xalaat ëllëg. buñ demoon ba dënk ñu maire bi wala ñu dënk ko équipe bu am nañ ci idée am nañ ci idée yu bari am nañ ci sax ay liggéey yu fort yuñ ciy liggéey mais nekkul loo xamante ne nii xëy na togg bu ñoragul la jaragul a yegg ci gestion commune bi nga xam ne mooy commune Nguéniène tey jii est-ce bi di euh, Ndianda Ndianda ngeen nekk est tey jii gis ngeen bopp ci li nga xam ne nii mooy municipalité bi nañu yor li nga xam ne mooy commune bi. nag euh, wax dëgg fa neex yàlla moom dama leen di sant ñoom waa Ndianda di leen gërëm di leen jaajëfal di leen remercier di commencer ci étudiant bu Ndianda di commencer ci enseignant yu Ndianda euh, may profito ci antenne bi di remercier le principal bi nga xamantene ni ren Ndianda dafa am 100 au BFM mu euh une première au niveau de la commune de Nguéniène di remercier aussi les nouveaux bacheliers parce que taux bu am solo la bachelier yi am ren di jaajëfal tamit sen mak yi nga xam ne ñoo leen jiitu université parce que dañ leen doon defal ay cours de renforcement et de participation buñ waxé waxee volet sport aussi ñuy jëm gëreum ñaari ASC e yi fi nek sen responsable Euh, muy euh, l'ASC yi ko l'ASC maire ak euh, ASC Ngelmaak la la rénovation mooy ASC bi nga xamante ne moo fi jeune ASC di leen remercier ñëpp dëkk bi dëkk bu yàlla baaxal la parce que ñu fi nekk xaaruñu dara ci communauté rurale xaaruñu dara ci gouvernement mun naa ne majeure partie infrastructure yu taxaw njànd ay partenaires ñoo ko fi taxawal ak ay doomu dëkk bi wax dëgg de du ma ne maire yi dugalul fi loxo mais su ma ko waxee damay wax leneen. mais li ma mën a xam de mooy lu rëy li ñuy xaar ci maire yi waa dëkk bi ñëw gis ko dund ko amagul xëy na nag dëkk bi am na ñu baax ñu dëkk ci dëkk bi di fi def jëf ju baax ku mel ni kii euh, am na benn GIE aussi bu fi taxawal lu am solo ñu koy wax retapam bu ngeen demee dans le net di ngeen ko gis mu nekk benn structure boo xamante ne dafay gérer ci côté urbanisme wàllum mbalit tout ce qui est gestion des ordures ménagères ñoom ñoo ko jël en charge di ko trier au niveau de leur site ñooñu tamit dañ leen ci remercier di remercier toutes les ASC e au niveau de de Ndianda parce que ay journée de reboisement da ngay gis ay jeunes yu nekk ci biir dëkk bi jóg ak seen propre initiative def ko kon loolu moom vraiment dañ ciy remercier mais nag maire yi moom ah waxuma ne defut parce que gis nañ fi ay ay liggéey yoo xamante ne ci mairie la jóge mais wax dëgg fiñ leen doon xaar yegg seeguñu fa fiñ leen di xaar parce que boo demee ci suñu terrain bi euh, mire wuñu ko euh, boo demee tey suñu dispensaire taw bi paase rek dafay am inondation yu bëree bari te la fa nekk lépp ay partenaires ñoo ñu ko may si ay partenaires tubaab euh, yoo xamante ne ni solidarité njànd la tudd ñoom chaque année lu am ci suñu dispensaire bi tey ñoom ñoo ko fa def dara jógewul ci commune wàcc si côté électrification bi xëy na yaakaar naa ñaari at yi la ñuy soog a commencé di fay électrification wu li nga xamante ne mooy poste de santé waaw comme niñ ko comme niñ ko waxee rek ki nga xam te ne mooy moom la ñuy dalal ci li nga Abdou Khadir waaw Abdou Khadir Absa ñëpp nag xam gën koo xam ci Sangone nekk directeur de cabinet kii di Boucar Diouf moom la ñu dalal ci li nga xam te ne nii mooy émission audience tey te mais Abdou Khadir ñu déggee rek li nga wax ka ni euh, municipalité bi peut être ni seen seen rôle ci diwaanu Ndianda c'est-à-dire commune Ndianda peut être am na lu ci desee manqué tey jii mën nañ xam kii di seen leader di tey jii lan la jotee réaliser moom ci biir Ndianda euh, waaw loolu moom euh, boo ko waxee rek dinaa ci sawar tontu parce que Boucar est son équipe plus précisément li nga xamante ne nii moom mooy. Euh, ci lu ndaw parce que li Boucar def ci yëpp xëjul ci émission euh, dañ ciy tënk lu ndaw rek commencé ci bi mujj rek euh, def nañ fi vacance numérique bi li nga le coronavirus ñu gis ne population bi dañ leen a ay yu bëri ay leen daje yu bëri pour ku mel ni ay jeux de football bii ñu aaye ko ay yu bëri ci lañ ne nañ def benn li ñuy wax vacance numérique maanaam initier xale yi ci lu mel ni kii euh, xarala yu bees yi ñuy wax internet wala lu mel ni kii euh, côté informatique ñu defal leen ci formation euh, presque mun naa ne presque une centaine de jeunes comme d'enseignants comme ay. nouveau bachelier ak des étudiants def nañ fi formation boobu encore une fois encore euh, bi nga xamante ne moom la coronavirus ñëw ci biir commune Nguéniène fépp ku fiy daara alxuraan di jàng alxuraan Boucar demoon na fa euh, ànd ak équipe am euh, mayee fa li nga xamante ne nii mooy ceeb mayee fa suukar mayee fa diwlin loolu ñu def ko ci daaray commune bi yëpp te lu jiitu loolu daaw ci côté sport Euh, parce que booy la commune nous ñun nous sur les neuf euh, domaines de compétences. le même ki domaine environnement gestion ressources naturelles santé publique et action sociale jeunesse et loisirs bi ñu yegsee ci jeunesse et loisirs lañ fa def mooy euh, ci commune Nguéniène Boucar rek qui ki fi organiser tournoi boo xamante ne ci dëkk bi la ko organiser woon mais ci final nous avons subventionné les quatre zones qui nga xamante nous. commune ku ci une un enveloppe de 50 000 ak deux jeux de maillot ak benn ballon de foot euh, loolu moom la def ci jeunesse sport et loisir même ci même jeunesse boobu am nañ le mouvement maire mouvement des élèves et étudiants républicains Nous, def nañ fi journée d'embellissement def nañ aussi un lancement politique avant ñu def journée d'embellissement bi def nañ fi lancement politique defoon ngandi grand meeting bu am solo def tamit li nga xam ne journée d'embellissement topp dëkk bi di jëlee Njanda euh, Ngeeñeen fait ak journée yëpp peggu tali bi ñu ñu peinture euh, li nga xamante ne nii moom mooy niim yeeg pot lamp yi nekk ci yoon bi en blanc booy dem ngee da nga koy gis ñoom ñoo ko def encore defaale ci publicité seen seen mouvement bindoo ci tali bi ay maire ak yooyu noonu vraiment loolu moom euh, lu bëri liñ ci def la li nga xamante ne nii nag mooy côté éducation dañuy def ay fourniture daaw rek li mu joxe ci fourniture ci commune u Nguéniène appuyé ko commune bi il était partenaire de la commune bi Magueye Ndaw faloo bees moom mooy premier partenaire bi ñëw appuyé ko en fourniture li nga xamante ne ni mooy aménagement du territoire tey am nañ ci projet ya nga xamante ne nii bëgguñ ko divulguer parce que <laughs> gars yi moom dañoo xaw a yéeme dangay ngay wax sa projet ñu gaaw këpp ko li nga xamante ne nii mooy urbanisme tamit dañuy liggéey ak ay urbanisme parce que am nañ sax des maîtrisards sur le secteur yoo xamante ne dañuy bokk ci suñu équipe bi je vais nommer le je vais citer le euh, monsieur Hamad Seck même aussi ñu ngi am projet euh, yi nga xamante ne nii mooy ci ay club anglais ci biir mooy chargé suñu ki nga xamante ne mooy suñu chargé de communication euh, xaw ma chargé euh, protocole euh, ak relation extérieure ñu koy wax Mister Bamba kooku moom tamit professeur mun nañ ne professeur anglais la parce que xale yi ci bac bi jàppale na leen ci lu bëri suñu équipe daal yaatu na bu ñu wootee ci li nga xamante ne nii mooy côté urbanisme aussi mun nañ ci solliciter ki nga xamante ne mooy mooy suñu responsable suñu kilifa ku ñuy wax madame Bill kooku tamit volet transport ak urbanisme amna lu bari num ci am vraiment mom mo nekkoon sax euh, directeur des opérations de la CETUD tay kooku tamit ñoo bokk équipe bi ben équipe bi di liggéey euh, yiñ ci am dal ci ay mëbët bari na ñu wax le parce que gaay yi euh, dañuy dañuy sàcc ay kii daal. macha allah ñuy dëdmal li nga xam moy élection élection locale yi ñu ko japp sax 2021 ñen ñi la est-ce que xam duñ ko dakk est-ce que tey jii kii di Bokar amna ambition wu postuler li nga xam moy élection municipale yooyu noonu. maanaam su ma déggee sa question bi est-ce doo ci gën a ñëwaat. question bi mooy est-ce que tey jii kii di Bokar Diouf euh, lii di élection municipale yi nga xam dañ ko dënmal dafa nar a taxaw demande li am mooy commune bu Nguéniène nekk la maire de Nguéniène. Euh, waaw li nga wax noonu yaakaar naa ci réalisation ñi taxawagum ci commune Nguéniène. fëgg seen waaw waaw bu ñu fëggee dënn ñu fëgg seen dënn yëpp wax ne ñoom maire lañ ci commune Nguéniène ku ci gën a crédible Bokar amul ci gestion commune bi amul bu ñu nee candidature à la candidature ñun candidat lañ ma ñëw maanaam bu ñu nee candidature à la candidature ci discipline parti la ñuy dox suñu parti bu dajaloo woon tey ñu ne ñan ñoo bëgg a doon candidat bokk nañ ci ñuy yëkkati loxo waaye nag sekem ci discipline u parti la ñuy jox mën nañu ñoo wax ne ay candidat officiel lañ ñu ay candidat officiel ndax parti bi joxeegu tey jii peut être parti mën na xool kenn koo xam ne a ko gën a propice wala yéen a ko a nekk taxaw bi ak moom wala parti bi du doxee noonu <laughs> ah uh-huh. li tax parti bi du doxee noonu mooy parti bi képp ku mu teg dañ ciy waxtaan ak consensus yàlla moo ñu baaxee élection ba tey lépp lu APR def ci commune Nguéniène coow li dina bëri mais sur consensus lañ koy defee coow li nag dina bëri na lool ci bëri ci biti gars ñu ngi jonkoon ku nekk di xaalaat APR bu tas mais du am ñu ngi liggéey suñu biir ñu ngi liggéey ak ñoom madame Bill ñu ngi liggéey ak madame seen bi nga xam ne mooy coordinatrice bi ñoom Simon Babacar adjoint coordinateur ñoom Moussa ah ñoom euh, Dollar ñoom euh, Jacqueline ñoom Jacques Noël ñoom euh, ki nga xamante ne mooy Coly ah ak ki nga xamante ne mooy Léopold Yaak seen ñoo ñëpp ñu ngi liggéey góor góoratin kii yee da njamaan ñoom ñëpp ñu ngi liggéey ak ñoom pour gestion commune bi parce que APR dafay sëmp ndëndam xeyna na ñu dem coalition ak keneen ku bëgg a ñëw dooleel candidat wu APR ñu ngi lay wo di la talal loxo mais APR day am candidat te candidat ba ah ñaan nañu yalla mu doon bukar comme mun na bañ doon bukar tamit. parce que bu ci bi ci biir diwaanu Nguéniène ku ne APR biir diwaanu ngeen wa xam nga liñ naan euh, guuy gu mag bu daano dina yobale guuy yu ndaw ci suuf yëpp. ñepp ci suuf yi nañ dañ ko gëmul nak fi Tanor mo fi doon responsable bu mag biir parti social première vague bi ñëw gi ñun ñoo jàkkaarloo dañoo jàkkaarloo face ki nga xamante ne mooy kilifa bi yàlla na ko yàlla yërëm nag mais newutoon dañ koo bañoon mais dafa la mu taxaw bi soxla maire bi ñu won ko ne ñun soxla nañ jàkkaarloo ak en ñi taxaw di wax tey ay candidat lañ yëpp ñu taxaw di wax Tanor moo fi jógee moo tax ñuy wax mais seul ñun am na doole goo xam ne ci tey est-ce yomb na tey euh, kii di Boucar mu fee postulé wala mu fee am li nga xam ne nii ci li élection locale yooyu ñu dëgg na xam nga loolu nga wax noonu Boucar du moom mooy soxla population bi moom mooy soxla am na benn euh, borom xam bu mag bu ne njiit la koy aar bu ko xaaree ci ay nit comme moromam la muy aar du aaru mais nit mooy aaral boppam li nga xamante ne mooy moomelam population wu ngeen ñooy aaral seen bopp seen commune ñoom ñooy seet ki ñu soxla te fim mu toll nii waaw mën nañ waaw d' nañ len mais li tax ñuy wax Boucar du candidat bu taxaw ne officiellement man candidat la mais limu liggey comme kan comme ku wara don candidat wala limu liggey comme ko xamanteni ni da fay liggeyal APR amul benen parti bu ko liggey sank rek ci njëlbeenul wax ma ngi lay wax ne commune ngeñen li nga xamanteni ni mom la fi bu def yenen candidat yi ak bu fi fim taxaw ak kim don jakar jàkkaarlool muy Ousmane Tanor Dieng manam APR ci bopam du ma wax Boucar kese rek mais APR ki ñu jàkkaarloon Ousmane Tanor Dieng boobu Ousmane nekk ci digg ndënd yi ñu jàkkaarloog moom nekk candidat dem élection am 11 conseillers ci suñu liste loolu seul APR moo ko am Ablaye Wade bi muy dugg ci digg dooleem amoon na fi ay responsable andi leen def ci ñoom alal ju dul jeex ñu dugg ci commune bi te amuñ lu weesu ñaari conseil APR ñëw ñëw ci 9 conseillers bi ñu demee table négociation cinq lañ ñu joxoon te ñu am 11 ce qui ne.

xalaat bu rëy bu rafet bi mu am ci Sénégal amul benn président bu mu ma koy égareel ci côté élection ah. waaw parce que xalaat xel fu mu jëm Sénégal da ngay dégg chaque jour ñu naan traque des biens mal acquis mu jëm ci ñi nga xamante ne ni dañuy jël alalu askan bi jëfandikoo ko li koy andi mooy dangay dem ba accéder au pouvoir ñu lay soog a wooye ku am alal ñun na car macha allah yàlla xeeb dolli avant ñu yegg ci commune lañu nekk directeur entreprise entreprise bu tey pare nañ bu ñu suñu tali bi ñu war a liggéey pare nañ pour lancer ci appel donc bokk ci ñuy liggéey tali ko am doole liggéey tali yaakaar naa ne caution 20 millions wala caution 40 millions du loolu moo lay jaax ñun li ñu solo si concentré wuñ ko ci xaalis bi mais ci doomu aadama yi nga xamante ne ñooñu fal ñun foofu lañ soxla ñooñu ci ñoom lañ jëm ñooñu la ñuy laaj baatu askan bi la baatu askan bi ñoom lañ koy laaj mais li ñu am ci projet askanu Nguéniène mooy faire ba li nga xamante ne nii mooy béykat sàmmkat nappkat étudiants ñu tëgg leen ci benn programme bokk ko ak ñoom def li nga xamante ne nii mooy montée des financements des crédits def li nga xamante ne nii mooy euh, traitement yoo xamante ne nii dinañu permettre ñu abattre li nga xamante ne nii moom la population bi soxla ñu nekk ci. li nga xamante ne nii nag moom mooy euh, liggéeyu commune ñeen jafewul jafewul c'est parce que ñi ko doon gérer dañuy dem nekk ci beneen level te du ñu wàcc population bi ñun nag ñoo population bi ñooy añ. ñooy reer ñooy ndékki ñooy tëddandoo ñooy demandoo tool ñooy wàccandoo bu laajee gétt ga ñu dem fa bu laajee sàmm ba mu ñu dem fa te bu intellectuel taxawee ñu ñu ñu abattre leen car macha allah affaire commune ngee Nguéniène li mu am ci ay leadership ay personnes ressources yoo xamante ne fu ñu soxlaa nit kenn taxaw président def fa lu mu mucc ami ayib loolu moom duñ ko natable du transport du économie du enseignement dul dara parce que on a des professeurs. maanaam daal taxaw ngeen fépp. fépp ñu taxaw. <laughs> ñu ngi nekk si li nga xam ne mooy suñu jeexantal lii di émission audience mais rek balaa ñu koy tëj li ma laaj rek mooy Sangoore relation yi nga xam te ni bokkal am na ko ak yeneen autorités yi nekk ci diwaanu département bi est-ce que relation yi nice la wala boobu. parce nag ñi ñuy xàññee yi fii ci diwaanu département bi bëri na. Mhm. te est-ce que yéen seen relation ak ñooñu est-ce que rafet na wala rafetul. car macha allah yàlla xeeb dolli ci le ministre madame Sy bu yagul euh ki nga xamantene moy mooy e, Omar Youm di waxtan ak kilifa gi moy Boucar Diouf e, Cheikh Issa Sall euh dañuy déggante ak mom par téléphone euh di waxtan ak ñi nga xamantene mom moy ay protocole euh ki nga xamantene ni mom moy euh madame honorable député sire Ndiaye wax deug fa neex yalla suñu xarit la ki nga xamantene mom la gaay yi borom Mbuur moy Cheikh Issa ñing fi tuddu ñep waaw fi ci diwanu Mbuur sa su ne gars dañ leen di xaaj waa ñi leen di xaañ xam nga ñooñu euh, dama la ne parti politique dafa mel ni yow mu tëgg sa làmb ci sa biir kër say doom di bare doo faral kenn waaye bu ci mbër feeñee nga ngemb ko. kan moo fay mbër. ah loolu population bi nañ ko wax ci kanam. Ah, dama gis ñu ngi fi tudd ñëpp képp koo bu ma la ci jëlee su benn noore. Mhm. askan wi département Mbour tooke ngaa ñu si surtout ma kuy correctionnal bi. wa kenn koo ci jëlee rek am na koo déggoo li ma la wax dama la ne. loolu mooy xeexu biir APR. politique nag bu ñu fàtte ne téesante da ci eh, amu ci solo de xam nga lu ci am solo mooy liggéey ñi nekk biir APR dinañ liggéeyante seen biir. mais loolu est du yàq seen du yàq dara parce que ku rooti APR ngay andi bu ñuy xuloo ki nekk tefes kee nekk euh, gàdd ga ku nekk di liggéey ci compte APR coow li li muy bëri mooy mun ngeen diviser mais bés bu ñu waree sottil APR day fees ndab li day fees na génn gétt gi na ñëpp woroot sàmm yi nag ku nekk sàmmi bu dajaloo jotee rek ñoo xam ne APR taxaw na. Hmm. waaw loolu yëpp nag euh, parti buy dox mooy mooy doxee noonu dama la ne parti bu yëngoo buy dox buy liggéey coow li day bëri xuloo yi bëri mais fii gisaguñ fi tojante see gisaguñ fi damante baara non du fa am parce que li tax du am mooy hmm. yàlla ni mu tëggee parti bi hmm. euh, kilifa gi ñuy xool mooy président Macky Sall kenn mosu ko dégg mu kenn ci opposition bi te chaque jour ñu yëkkati baatu tuuma baat yu ñaaw di ko ko sànni mais bu askan bi lay waxal liggéey lay waxal ñun loolu ci loolu la ñu président yar ci loolu la ñuy dox même fii njànd bu ñuy liggéey ba gis ne boy bi ñuy liggéeyal kat la sax ñu taf la ñun liggéey rek lañu xam mais tamit daf mel ni yéen tamit ci biir ñande ki di jot jot ci bu buukar yombul ndax yeen nak seen comité directeur bi ngeen xawa sax trop ni ngeen koy ndax ngeen koy tejj ko pare ñi ñeneen ngeen wax non tejju tëjuñu buukar ah, mais wa mën ngeen ko gis mais tëjuñ ko dañoo ko structurer mhm. parce que tay bo joggé ne da ngay dem palais soxla Macky Sall da ngay fëgg buntu bi jakarlo ak mom té ñun nak bu ñu gis ñuy dañoo tuuti ci fiñu tok waye fiñuy xol dafa sori parce que am nañ ay président de la république ci suñu biir groupe de waaw loolu lañ gëm daal dañoo gëm ne ci suñu biir groupe am nañ ci ay président de la république te nguur dañ koy jàng dañ koy jàng ba mat ko rek man soog cee taxaw li ñuy structuré ci suñu parti noonu la ñu structuré suñu groupe mais noonu la ñu structuré tamit sax suñuy liggéey dama la ne bi li jëlee ci kaw ba ci suuf neuf domaines de compétence yëpp boo ma ci laaj léegi ma wax la ne def nañ ci nangam structuré moo ko waral mais bu fekkoon dañ doon liggéey ak asaaloo rek Euh, xalangu dajul suuf daal. Mm-hmm. kàddu gu mujj gi nan lay euh, ñu ngi lay jaajëfal di la remercier di remercier képp koo xamante ne responsable nga ci commune Nguéniène di remercier tamit vivement les responsable de la euh, commune de Nguéniène plus particulièrement ceux de Ndianda ndax madame Bill Samba Faye ah, bi dafa mel ni fii biir Ndianda am ngeen fi siège ah? waaw loolu yëpp ci liggéey macha allah ñu sant yàlla sante ko yàlla suñu borom am nañ siège boo xamante ne xëy na lépp lu concernant parti bi kan moo ko tabax kan moo ko équipé lépp loo gis fii monsieur Boucar Diouf la te chaise bi defar nañ tuddee wuñ ko sax siège APR la république la république maanaam ñëpp la du pour man du pour kenn même beneen parti politique waa Pastef bu ñu soxlaa réunion bu ñu ñëwee ñu àll waa PDS bu ñu soxlaa réunion bu ñëwee ñu àlleen sàmm yi ku soxla réunion bu ñu ñëwee ñu àlleen parce que dafa nek jumtuway bo xamantene ne waa dëkk bi ñoko soxla ñu def ko fi kon wa dëkk bi ñokoy jëriñu ci parti lañuy liggéey mais yu ci kii kii daal euh, ma ñew remercier encore képp kuy responsable manam waxon nako légui ci ñël ci yi nga xamantene ne suñuy papa ak suñuy yaay ku melni ki madame Bill ne Thérèse Ndaw Samba euh Mamadou Dion Bassoudou Dion euh, ak képp kuy responsable rek surtout jeunesse bi aussi melni ni ki monsieur André Ndour André Ñing sec Euh, amat Seck sëñ Bamba Misté Bamba Étienne Ñoxor euh, Demba Ndiaye ñëpp daal ñëpp parce que ku lim di nga juum ñoom Mbulo ñoom Ndey Faatu ah ñoom euh, mademoiselle Pouy ñëpp daal képp koo gis rek koo xamante ne liggéeyal nga APR jàppal ne bëgg naa liste bi yaatu na mais mënuñu lim yëpp mais képp kuñ tudd rek jàppal ne ñu ngi lay ciy jaajëfal di sakku ñaan ci Sénégalais yi di tallal loxo encore une fois commune Nguéniène di leen wax ne bu ñuy fàtte ci ñaan ndax yaakaar nañ ne bu ñu wëree rek même bu jëlul commune bi sax dinañ ko liggéey waaw loolu moom euh, incha allah ci tànk yooyu la ñuy tëjee di la encore di jëfal le remercier ndax euh, euh, xëy na mbuur du te aussi émission bi da ngeen ko def avec fierté def ko ci ñu gëna rafété vraiment ñu ngi leen ciy jaajëfal bu baax jërëjëf ki nga xam ne mooy Abdou Karim am sa ñu gën ko xam ci sàngu woon moom nag nekk directeur de cabinet kii di Bokor Diouf moom lañ dalaloon ci émission Odia te nag ci diwaanu Ndianda lañ demoon rek di di remercier aussi tamit ñëpp ñu ñu yombal liggéey bi parce que nag yombutoon déplacement bi yombutoon mais di remercier bu ba aussi ñi nga xam ne ñoo nekk ci comité directeur Bokor Diouf moo chargé de commande ñëpp parce que jàppale nañ ñu ci baax a baax